Bonsoir, chers collègues. Euh, je vous salue vous tous en présentant mes salutations, en vous disant que je vous salue le presse, les médias et je salue ensuite les chers compatriotes. Nous, on est notre, avec notre leader Alsan Tcham on soutient Alsan Tcham. Alsan, il est en train de soutenir le président, le futur président Amadou Ba. Regardez-vous les jeunes et travaillez et soutenir votre président de la République. Et attendez-vous demain, vous serez des présidents ou bien vous serez des ministres et des députés. Donc, c'est ce que nous avons à dire, c'est ce que nous devons à parler avec cette personne. mbooloo mi maa di nuyu di maa yuf, de koufi Diouf dëkk fii ci commune bu assistant bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi di nuyu suñu mbokki journalistes yi fi bu baax juste rek ñu teew fi pour communiquer ci actualité bi nga xam Sénégal ñu koy waxtaanee fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew te xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi ci communiquer noo xam ne baaxul tey nag mouvement ak ay ami ak ay sympathisants yoo xam ne tey ci biir commune bi lañ nekk ànd ak mouvement doomu yaraax bëgg a wax tuuti ak askan bi li xew li xew benn mbir rek la mooy Sénégal am na fu mu tollu moment bii ñépp di wax ne lan moo tax. président de la république mu renvoie ay élection ñu leen di xamal ne président de la république dañ ko fal mu légitime dañ ko fal pour mu garantie dañ ko fal pour mu sàmm stabilité réew mi stabilité réew nag mënuloo ko sàmm te jàmm amul kon bu ñu dégmale ay élection président de la république jël ay décision ànd ko ak tey ñi nga xam ne suñu mbokk lañ nekk ci kujje gi te di manipuler sénégalais yi te ñu ëpp ci ñoom ñoo dem woote bind demande président makisal na renvoyer ay élection dafa baax ñu wax sénégalais yi lan moo xew loolu mooy li xew te loolu mooy dëgg mënuñu toog bokkuñu ci ay élection ñu rekkale ñenn ñi ñenn ñi seen fiche de parrainage baaxul ñenn ñi mataluñu ñu bind bataaxal njiitu réew mi ne ko dañ lay ñaan nga reporter élection yi président Macky Sall nag ndey ji seex la dañ ko dénk réew mi ci jàmm bu ay nit toogee wax loolu mu ci yaatu dënnam ci boole ñëpp ci mbir mi te ñëpp a ko bokk mu ne ay la yéwén loolu dafay jaadu ñu toog waxtaanee ko moo tax dañuy lancer on appel jaloog bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko ñu wax ñi nga xam ne ñoo séq réew mi di politique Sénégal dafa yàgg ci politique démocratie dafa yàgg ci Sénégal nañu dem wuy ji appelu njiitu réew mi te dem waxtaan ak moom ñu def processus boo xam ni dana leer dana def lépp ñu dem élection yoo xam ne day transparent képp ku yàlla jox réew mi ñu jox la ko en tout cas ñun nekk ay ndaw fii ci commune bu Hann Bel-Air di suivre actualité bi am ci réew mi ak ci bitim réew xam ne soo jëlee sous-région bi Sénégal rek moo fii réew boo xam ne stabilité bi fi nekk réew yëpp dañu ko ñeewee ngelawaay nañ ko sàmm bu ñu seetaan nag ay manipulateur ay waxkati lu dul dégg woo ndaw ñi ci mbedd mi tëju seen kër yi seen doom yi demuñu seen jabar yi demuñu seen soxna yi demuñu ñuy bëgg a doomu jàmbur bi maa ngi xamal opposition di Sénégal nañu arrêté loolu ku xë seetaan li xew barke démb bi gisuloo benn leader bu génn gisuloo benn doomu leader bu génn ñu sacrifier ay doomu jàmbur mu am ñu si dee vraiment dañuy déplorer loolu dañ koy nakarlu di massaw ñi nga xamne ñak nañ seen dom di interpeller opposition bi ñu xamne nguur duñ ko jot ci taal duñ ko jot ci lak duñ ko jot ci yak ñun ñi and ak président Macky Sall luy suñu yene moy rew mi li fi bax bu dee fukku la juroom ñet yi président Macky Sall moko fi def kon ñun amuñu objectif yu xamuñu ko bëgguñu ko parce que japp nañ li na ci rew mi président Macky Sall moko fi def kon nak dañuy défendre lolu wax ak askan bi wax ak ndaw ñi ñu xam ne génération future ci ñun la nekk ëllëgu réew mi ci ñun la nekk kon opposition bi nga xam ne deen dara lalu ñu ko ci dara lu tappale ak caaxaan wax lu dul dëgg génn doomu jàmbur yi ci mbedd yi ñuy dee ñu lakk seen doom yi ñu ngi wax opposition bu Sénégal nañu arrêté loolu ñun en tout cas pare nañu tey ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ci commune bu Hann bel ànd ak mouvement doomu Yaraax ak ay plateforme ak ay soutien défendre l'eau, défendre politique publique du président Macky Sall parce que gis nañu ne jàmmi réew mi kenn gënu koo bëgg président Macky Sall am na lu fi xew nag bu yàggul dara ku nekk di ci wax dafa am suñu xarit suñu frère suñu camarade monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam ñu koy féliciter encore di fësal suñu njàppale ci moom di fësal suñu soutien ci moom parce que nag am na loo xamante ne tey su amee dañ ko koy jërëmee gis nañu fi chaîne de télévision bu ñu tëj jàpp jël licence am coupé internet dama ne maa ngi wax monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam confiance bu président Macky Sall am ci yow bu fekkee ne nga coupé internet 24 heures mooy tax réew mi am stable jàpp nañ ne loolu yoon la te nangu nañ ko te ñu ngi la ci soutenir bu baax a baax a baax di wax ne nag Sénégal dañu mën a wax te duñu àtte xeex. bu ñu fekkee ne groupe de la presse liberté de la presse mooy nga taxaw ubbi sa télé ubbi sa antenne ku nekk woote mu ne kaay leen ñu yee fitna ma ne bu fekkee ne loolu mooy tax ñu ne loolu mooy liberté de la presse d'accord ñu tey kon monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam ñu ngi lay féliciter ci li nga def jël say garantie jël say engagement ak sa élégance bu nekk ci yow ak xam-xam bi président Macky Sall gis ci yow ba dénk la lu toll ministre de télécommunication d'économie numérique vraiment boo jëlee licence. tej ay télé tej internet dañ koy rafetlu parce que tay nak télé bobu ñuy wax fajiri bu fekkee ne ñafa nek ay partisans lañu nañu wone ne ñom dafa am fuñu far bu ñu amee carte membre nañ ko wone man nak dama Rus, dama am gatché bu may déglu ku melni Cheikh Niass mu nek fils ci Sidi Lamine Niass mu taxaw di wax naan licence lañ bëggoon amuñu ko doctorat lañu rew mi jox wax yu xeebu yoyu wax yu ñàkk xam-xam yooyu Cheikh Niass dafa tuuti ci kanamu sénégalais yi papaam bu doon dund du wax loolu Walfadjri ñëpp xam nañ ne la waaye héritage warul tax ngay wax lu yee fitna warul tax ngay taal réew mi kenn xam ñëpp xam nañ ne daf dañuy bañ manifestation bu nekk à soo nga koy wane direct amul benn liberté bu ko maye journaliste dafa war a informer mu juste mu vrai waaye warul warul warul warul attené lii mooy dëgg ak lii du dëgg te dañu gis journaliste yi nekk wal fajri nag ñu wax ko te dee dañuy toog joxe xibaar commentaire ko joxe dëgg bi mënuñoo atte joxe nekk juge bëgg a nekk plaignant bëgg a nekk juge bëgg a nekk loolu mënul nekk loolu day arrêté kon nous félicitons musa le ministre Moussa Bocar Thiam ñi koy menacé di ko fe di ko di ko xaxar nañu noppi Moussa Bocar Thiam doomu yaax la fii la juddoo amul lu muy ragal ci àdduna bu fekkee ne nit ki def liggéeyam nga toog fi nga toog naan ñu ngi koy menacé na ubbi télé bi na ubbi rajo bi na ñu dem toog dara mënuñ ko ci moom ñu ne on est pour défendre ko soutenir ko publiquement ci moyen ci xel ci lépp kon ñu ngi wax ni ñi koy toog di wax ci Moussa ministre Moussa Bocar Thiam la ñu dem tëddi nelaw confiance président Macky Sall mu ngi ci moom confiance Sénégal mu ngi ci moom confiance waa Hann Bel-Air mu ngi ci moom kon maa ngi interpellé Sénégal yi nañu tabax réew mi ci jàmm nañu liggéey réew mi ci dal nañu encouragé suñu doom yi ëllëg parce que réew mi ñoom la yaakaar mënuñu am dëkk boo xam ne dafa am pétrole ak gaz ñu koy séentu ñuy jox xale yoo xamante ne boo leen joxee kër mënuñu koo yor président Macky Sall du def loolu képp ku koy xaar foofu nga dem te di nelaw ñi nga xam ne nag ay bailleur la ñu nekk bitim réew jël xaalis bëgg a taal réew mi du nekk mënul nekk opposition bi ñu làqu seen ginnaaw bëgg a taal Sénégal du nekk on est prêt pour défendre loolu di encourager président Macky Sall ci moom di jàppale suñu candidat Amadou Ba di ko souhaité yàlla may ñu élection yi jàmm yi nga xam ne président Macky Sall nee na ñu def ko ci mois de décembre ñun de jàpp nañu lépp lu ñu bàyyi woon lu ñu jàppoon bàyyi nañ ko takk suñu ndig sol suñu tubéy takk suñu yére dàll dem jàppale président Macky Sall ci stabilité réew mi ak suñu candidat Amadou Ba di ko souhaité yàlla may ko ndam dénk ko réew mi

et techniciens des médias, nous vous remercions pour votre honorable présence. Dans un contexte politique marqué par de récents événements, nous, la jeunesse, les femmes, la population de Anne Belair et en général, et particulièrement le mouvement Domouyarach, tenons à déplorer profondément l'attitude de certains responsables politiques qui, veulent utiliser la jeunesse comme bouclier afin de mener leur propre combat, qui est plutôt un combat avec des intérêts crypto-personnels. Ce prétendu combat est juste la manifestation d'une volonté de manipulation de la jeunesse par des hommes politiques de mauvaise foi. Nous tenons à rappeler à la jeunesse, à la population sénégalaise en général et à celle de Anne Belair en particulier, que le Sénégal nous appartient tous et que nous devons tous lutter pour la préservation de cette belle nation et la sauvegarde de nos biens communs afin d'assurer un lait prospère à nos générations futures les élections présidentielles étant reportées au 15 décembre prochain. Et précisons que ce report est le fruit d'un accord du président de la République suite à de nombreuses demandes de l'opposition et des demandes d'explication de l'Assemblée nationale via une commission d'enquête. Félicitant le président Macky Sall pour la lucidité et son esprit fédérateur. Nous engageons, nous tenons à réaffirmer notre engagement vis-à-vis de notre candidat, M. Amadouba. Et tenons aussi à le rassurer que la commune de anne est derrière lui. Nous, Dom sommes toujours dans une dynamique de politique positive et inclusive avec la population et comptons lui rassurer, assurer une victoire au premier tour lors des prochaines élections présidentielles. Par notre voix, aussi nous soutenons et défendons avec ardeur la décision du ministère de la Communication d'avoir suspendu et retiré du coup la licence du groupe médiatique Walfagri. Cette décision contribue à instaurer la paix et la stabilité dans notre pays. Rappelons que ce groupe de presse a manifestement multirécidivé en défiant l'autorité et fort heureusement d'avoir des hommes d'État et courageux et en la personne du ministre Moussa Bokarcham pour incarner les valeurs de la droiture, du respect et du sens de la responsabilité. Nous dénonçons cet acharnement vis-à-vis de ce digne fils de Yarah, rappelons-le et condamnons fermement les agissements de certains de nos compatriotes visant à tenir son, son image avec des attaques verbales et crypto-personnelles. Nous sommes dans un état de droit et les voies et moyens juridiques existent bel et bien pour contester contre cet arrêté et les responsables du média Walfadir sans doute ne l'ignorent pas et nous les invitons à se conformer à la réglementation. Pour conclure, nous lançons un appel à tous les responsables politiques, les sympathisants et les militants de Benno Bokuyakar à rester mobilisés autour de notre candidat. Nous exhortons les jeunes à plus de responsabilités et de retenue. Yara fut récemment présenté et décrit comme le théâtre de la violence inouïe suite à l'attentat du bus. Nous tenons à dire que Yara est le symbole même de la cohésion sociale, de la spiritualité, du dialogue et du partage. Sur ce, nous invitons toute la nation à répondre à l'appel du dialogue de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Je vous remercie.